nga xam ne mooy charte wala euh, document bi nga xam ne fii leeg deux mille cinquante moom la ñu bëgg ni mooy doxal réew mi ci gis-gis ndax réew du lu ñuy improviser da ngay am vision waaye vision bi nu mu leer leer leer buñ la joxee réew il faut nga dem phase opérationnalisation mooy nu ñuy def ba nuñ koy doxalee léegi ci loolu lañ nekkoon ñaar yooyu moo tax peut-être ndaje bi yéex. Euh, daanaka bi ko dage bi ñu ko laaj dage euh, demandé dama ko ne woon dina xaw a jafe ba démb rek dem naa ba koy fomm li tax nag daje bi am solo mooy soo son excellence président de la république dafa am cër bu rëy rëy rëy ak yaakaar bu rëy rëy rëy bu mu am ci primature bu mag a mag a mag jël ko nag teg ko suñu loxo moo tax bi ñu toogee fii ba léegi am na nu ñuy doxalee ba ñenn ñi nag yàlla may nañu mu doxee neneen lépp dañ koy def ci diisoo déggoo te jàpp nañ ni pour présidence de la république am doole ci cër bi nga xam ne askan wi jox nañ ko pour mu am doole gu bëree bëri bëri il faut que primature am doole lu ko moy rek du dox looloo tax nag ma bëgg kenn ku nekk ci yéen xam ni su ma waxee ni cër gi ñu jox primature rëy na du cër gi ñu jox premier ministre Ousmane Sonko mais cër gu ñu jox kenn ku nekk ci yéen la du chauffeur bi du ménagère bi du secrétaire du directeur du euh, directeur de cabinet du keneen ak keneen ñun ñëpp la concerné su ñu amee résultat résultat wu Sénégal la ndamu Sénégal la te loolu la Sénégal yëpp di ñaan di ko xaar depuis très longtemps mooy changement bi ñu bëgg am changement boobu nag fii lañ koy impulsé fii ci primature te war nañ cee taxaw mat liñ ñu doye lu ko moy rek war nañu solo boobu nag mbir yi am moo tax euh, ñu bëgg a wax ni dina am yoo xam ne lu ñuy lu ñuy farlu la ak lu ñuy lu ñuy euh, saytu la ci liggéey bi bi ci njëkk mooy kenn ku nekk ci yéen ñu ngi xaare ci moom mu doon ku xarañ ci liggéeyam xam ko mën ko kenn amul amul kenn ci yéen koo xam ne man xam naa la wala bëriwul te ñëwuñu it ne dañuy jëlee ñu fi nekkoon indi ñeneen ba mu des li nga xam ne poste de confiance ñu wër prime premier ministre la. am nañu njort ni kenn ku nekk ci yéen mën na liggéeyam ndax ku fi nekk depuis cinq ans depuis dix ans depuis quinze ans vingt ans di def benn liggéey am naa njort ni mën na ko ba baa ñuy gis. safaan bi moo tax am njort gi tekkiwul ni libéré nañu rek dem toog déedéet kenn ku ne nañu xut nañ la saytu di xool ndax li ngay liggéey jaar na yoon yaa ngi koy def ni nga ko war a defee wala yu demee noonu donc xarañte ak passif ci liggéey bi ñaareel bi mooy jub ak jubal jub ak jubal loolu dafa doon loo xam ne mooy góom bi gën a rëy ci administration Sénégal la ca bëri du ma ne ñëpp nag kenn ku ne fa nga nekk yaa ngi xool noo fay tegee sa business bu bopp te business bi nag lu dugg sa poos rek lu wàññeeku la ci wàllu li waroon defar hôpital bi walla tali yi wala làmp yi walla école yi góom boobu bokk na ci góom yi gën a rëy ci administration Sénégal te bokk na ci. suñuy priorité su dee dañu ne dañu bëgg a defaraat administration bu demee noonu nag ñu xam ni primature moo war a njëkk a joxe exemple bi ndax moom mooy euh, ndeyu administration yëpp moo jiite administration kon loolu nañ ci bàyyi xel euh, yooyu exigence la moo tax am na lu ci jot a xew lu tuuti fii gis ngeen niñ ko doxalee te noonu lañ koy continuer primature boobu nga xam ne war na jouer rôle bii ma wax nii gannaaw doxal mbir yi te bientôt ci weer wii ni ma ko waxe woon depuis sama génn bi ma génnoon Grand Théâtre ni fii ak septembre dinañu présenter Sénégalais yi référentiel bu bees bi incha allah noonu lay demee. buñ ko xasee ba génnee te du liggéey bu ndaw de ndax gis-gis la boo xam ne tëgguñu ko ci benn weer wala ci benn at wala ci juróomi at réew lu koy soppi lu ñuy liggéey la teg ko ci xam-xam teg ko ci méthode teg ko ci application teg ko ci rigueur ci ay at yi at moo tax boo xoolee juróomi at yi njëkk yi redressement lañ ko tuddee ndax boo fekkee kër goo xam ne fondation yi nërmeelu na nga ñëw au lieu nga defaraat fondation yi nga ñëw rek di teg ay briques boo moytul doo am doo gaaw am brique doo gaaw am kër moo tax redressement phase boobu dafa di phase bu am solo loolu noonu nag nañu xam ni bu dee téeméer juróom-ñett fukk yi primature moo ko war a doxal moo ko war a doxal j'insiste pour que chacun fii ci ñi fi nekk xam lan mooy suñu responsabilité responsabilité bu rëy a la kon ci ndaje bi mënuma woon ñàkk insister ci yi nga xam ni man farata la ci man yooyu mooy njëkk a nekk farata ci man may daral seen xel nag nii gannaaw bi ma delloo euh, gërëmaat son excellence le président Bassirou Diomaye Faye ci kóolute bi mu am ci ñun ba jox ñu primature waaye kóolute bi mu am ci ñun ba jël lengay nañu lii lay xaar ci yéen bañ na ba daf ma ne décret bi war a organiser primature maa ngi koy xaar xoolal noo ko bëgg a doxale ba ñuy def décret de partition service daf ma ne seetal lan nga bëgg ci ay service yoo xam ne war naa indispensable ci primature nga wax ma ni lii ak léegi lii laa bëgg ma ne ko man service civique bi rek laa bëgg ak bos yooyu bu ñëwee rek par rapport ak fi ñu bëgg a jëm mbir mi presque mat na kon di ko gërëm ci confiance boobu ak ci cër bi mu ñu jox su ma ko joxee man jox na ko waa primature yëpp ndax président bu dooleel premier ministre am dafa dooleel primature bi yëpp di ko ci gërëm moo tax may dalal xel ñi fi nekk ñëpp xam naa ne seen xel ñàkkut dal sax waaye di di wax Sénégal yëpp nii ñooñu di balli balli di tëbëki dal ndax xam nañ ni mbir mi jeex na ba tax ñoo dañ def course contre la montée dañuy daaneel gouvernement du daaneel lu toll ni tarfata ayin motion de censure ci boppam moo dul am fii Sénégal loolu ma wax ko te teg ko fu leer te ci tey balaa bés bi di jeex di ngeen gis li tax ma wax ko am na ñoo xam ne dañoo jàpp ni àdduna yëpp politique la te bu ñu gisee fi ñu jaar ak ñoom bay si fii war nañoo xam ni ñoom mënuñu politique ndax suñ ko mënoon lii di noonu nag lañu ñu fas yéene continuer ñoom te noonu la ñu fas yéene doxalee ci li jëm ci aar alalu réew mi ci bépp fànn delloo si alalu réew mi ndax ñi nërmel réew mi gasal ko kàmb gu dul jeex jël ay milliards yi dugal seen poos lii ñu génne ci réew mi te xam nañ fi ñu ko jaarale ñoom ñëpp nag ma wax leen ko bis ki tey suñu tekk-tekkaaral bi boobu ba léegi wax naa ko ñaari yoon wala ñetti yoon du woon faiblesse dañoo bëggoon li ñuy liggéey ñu teg ko ci méthode ba dossier bu ñu yëkkati rek laam-laame du am waaye comme gis nañ ñoo ngi commencé di daw am na déjà ñeent wala juróom yu génn ñi ngi Dubaï ñi ngi kanadaa moo tax ñu jël ay mesures conservatoires ndax ku ci dem du dellu si ndax xam nañ li ñu def ñoom ba tey jii ñu mën a toog ci réew mi. xaar seen wàll ci war a ñëw jàkkaarlook euh, yoon pour layoo ko te du am benn dossier bu ñuy monter nag dossier yu leer nañu lay doon loolu nag waratul am ci réew mi su ma koy wax fii dama bëgg a joxe exemple niñ ko bañee ci ñoom ñooñu ak li ñu def noonu lañ koy bañee ci ci suñu euh, régime kenn ku nekk ci yéen li mu am bari na tuuti na li mooy wër wërsëgam na ko sante yàlla te kën a concours continue di góorgóorlu xam ni yàlla waxul kenn dara ni ko xale di waxee nit commencé na ci cinquante mille francs mujjee ci ay millions lépp te te jaayul ngoram jëlul lu moomut loolu dafa am solo continuer di liggéey yem ci li nga moom bañ a dugg ci loo xam ne moom loo ko te kenn ku ne ci yéen dafa am obligation loolu tam ma wax ko tey agent bu xa bu gisoon premier ministre muy def lu lul yoon wala mu jël lu mu waru jël yoon la farata la mu dem dénoncer ko loolu ay texte la yu nekk ci suñu loi nekk ci suñu cadre communautaire obligation la parce que fonctionnaire yu bëri dañuy gis tul yoon mais dañ naan sama yoon newu ci waruma wax loolu dafa mel ni presque complicité la donc kenn ku ne bu gisee lu jaaduwul daf ko war a parce que ay nit bokk liggéey kii ne man maa ngi muñ parce que damaa gëm yàlla te bëgguma yóbbu sama kër lu lewut takk biiram keneen ne man dama yàkkamte il ma faut de million ñu toog di ko seetaan loolu bokk na ci li yàq réew mi kon loolu it ma insisté soo gisee président de la république bi mu toogee li mu njëkk wax mooy dinañu teg benn projet de loi pour gën a protéger les lanceurs d'alerte loolu dafa am solo pour gën a protéger ñi nga xam ne gis nañu dul yoon ñu dénoncé ko am na ay réew yoo xam ne boo doonee lanceur d'alerte dañ day fay dañ lay jox xaalis ngir loolu ba ci États-Unis am na fa yow mi signalé benn kaa ñu càmbar gis ni kaa bi am na dañ lay jox xaalis yow donc loolu day tax ñu gën a dëgëral li nga xam ne moom la ñuy tuddee la lutte contre la corruption moo tax beneen aspect bi mooy sakkanal sakkanal nag du affaire euh, ngeen jégal ma ci terme bi wala kaana waaw du loolu sakkanal mooy lii alalu réew mi la doole bariwul même réew yu am doole réew yu am doole tey boo demee si si ñoom lii ngay fekk suñu administration amu réew yu am doole annoncé nañ temps leen dañu def une centrale d' achat pour centraliser lépp loo xam ne ay achat public la ndax réew moo xam ne direction bu nekk direction générale bu nekk ku nekk yaa ngi yor sa budget léeg am say nit di passé say marché ñuy surfacturer lu waroon jar téeméer ñu jëndee ko euh, junni loolu mënul wéy mais loolu bi ma ko annoncé ba pare demal France moo fa am France kay moo ñu gën a développé foofu ëpp ñu moins mais France centralisation des achats publics moo fa am Allemagne moo fa am feneen ak feneen bu ñu nee nañu rationnel te li may wax nii bu ñu ko dajale yëpp li ñu war a def ci économie ay milliards la est ku taxaw fële bëgg a def politique rek naan waaw euh, ay ay détails la ñuy toppatoo ay machines li ñuy jënd ci imprimante te at wu ne presque ñu remplacer ko ñu changer ko. boo centraliser woon niveau bi yëpp nga def benn imprimante ñaata nga économiser ci ay millions boo ko defee à sur l' ensemble de l' administration c' est des milliards qu'on va la réduction du train de vie de l' farata la ci ñun ndax réew yi ñu ëpp doole fuuf da ngay xool les pays scandinaves ñu ñu ëpp doole fuuf ay Suède ay Écosse ay ñoom seen Norvège mais dañuy jënd quelques oto teg ci digg bi ci digg service bi ku ñëw liggéey si. boo amee mission booy génn nga dem lenn saa ñu ne la xaaral ba ñaar ba ñett génn chauffeur bi yóbbu ñëpp teg indiwaat keroog maa ngi seetaan reportage Norvège ci lu mel noonu mais fii da ngay jox ku nekk oto jox ko carburant ainsi de suite ainsi de suite loolu bokk na ci nga xam ne yu ñu war rationaliser la moo tax li ñu wax léegi ci les bus de ramassage bokk ci solution yi la bokk parce day tax nga économiser ci waay yooyu donc yàqanal ba réduire le train de vie de ci bépp fànn ba ci masse ba ci yeneen ak yeneen suñu nee masse salariale nag c'est pas qualitativement c'est quantitativement quantitativement politicien bu jog dem jël say mbokk yépp dugal keneen ñëw jël nga gis service boo xam ne li lu ëpp xaaj bi du ñu nécessité de service amuñu sax liggéey foofu amuñu poste demploi emploi mënoon lii la ñuy liggéey Sénégal ngay gis ku ñuy fay sa te du teg tànk ci bureau ba ñu ne léegi loolu nañ ko continuer bàyyi ba kañ yàqanal boobu nag moo taxoon président la république ne lu mel ni conseil économique et social ak HCCT ak yu doon dafa jot nag ñu dindi leen fi ndax milliards yañ ci économiser xaj na feneen. nee nañu ñoom ñoo yor majorité assemblée nationale ba bloqué nañ ko waaye loolu du ñu teye def li ñu war a def ndax gëm naa ni tey jii euh, njiiti jiite kuréel yooyu du ñu fanaan en tant que président de ces institutions te dinañu fexe ba benn fistine dootuñu ko dépenser yu jóge ci institutions yi parce que ñun xam nañ li xew en fait c'est les vache à dañuy alimenter les circuits des partis loolu rek moo tax ñu ciy rey seen bopp waaye askan wi taxu leen a jóg Sénégal taxu leen a jóg loolu nag nañ ci jël ay matuwaay yu mat sëkk la ñu diglanteeg Sénégalais yi ci defaraat réew mi teg ko ci yoon ci bépp fànn gannaaw yàlla gis ma lu ko mën a tere de mun nañu xëy saa yi ñu xëyee takk rajo am seen i presse ñuy bind waaye loolu yëpp ay weqatu la d'un système finissant dafa am loo xam boo ko bëggee changer foog mu am des embryons de résistance c'est pas de la résistance de man xam naa luy résistance c'est des embryons de résistance waaye jeex na takk bu soobee yàlla te gëm naa nit li ma leen ne motion de censure du am te assemblée nationale gën saa gudd une dizaine de jours moo leen fa dese sénégalais yi tànnaat assemblée nationale buy permettre au président Bassirou Diomaye Faye mu doxal appliquer sa politique ñu gis résultat yi le plus rapidement possible lii lépp nag nga xam ne ay exigence la ay nit tam boo leen buggee teg lu diis ne maa ngi xaar ci compétence engagement probité loyauté ak yeneen ak yeneen il faut nga góorgóorlu it améliorer seen condition du question pàccoo nag waaye liggéey bu nekk ñaq wu ne dafa war a ànd ak payoor payoor nag bu jaadu la ñu bëgg a wax moo tax it euh, dinañ def suñu kem kàttan ndax wax dëgg yàlla euh, niveau payor bi fii ci primature xaw naa néew ci li ma gis bi ma ko xoolee te loolu contradiction la sax suñu nee primature mooy mooy kilifa administration yëpp kon faw ñu góor góorlu ci euh, améliorer loolu te loolu it def naa ko ci sama yitte euh, nee naa léegi ci nasaraan bu leen jàpp ni nag engagement signé la waaye lu ñuy liggéey la te nañ ci def li ci war a def am na lu ñu ci commencé déjà ak ministre des finances ak DAGE te nañ ci gën a góorgóorlu gëm naa ni di ngeen gis résultat yi bu soobee yàlla lépp lu jëm it ci euh, conditions yi nga xam ne mooy tax nit ñi liggéey ci xel mu dal am na ñu ko fi tudd wax naa ko DAGE depuis de mois bi ñu nekk batiment bële. nee naa ko waxal personnel lu ñu organiser wu taxawal association bu yaatu defar mutuelle bu boobaa ñu mun dinañ mën a jaaree foofu xool nu ñuy accorder une subvention pour les tickets de restauration ak yeneen ak yeneen peut-être ñu euh, ngi ciy jàppee bu baax a baax euh, euh, ba ci lépp loo loo xam ne day parce que liggéeyu. administration liggéeyu xel la la plupart du temps mais xel moom pour mu xel li bu baax a baax il faut que yaram yu wér moo tax yu bëri wax naa ni euh, jox naa instruction sax pour ñu defar fi salle de sport te boobaa nag dinaa ko boole ci critère de notation yi amul amul mag la ak ndaw la ak ñoom seen ñëppay sport parce que je veux des agents qui soient en très bonne forme pour mun a Euh, def liggéey bi niñ ko bëggee ak yeneen ak yeneen ba ci salle de santé bi euh, parce que nit rek lañu nit machine la à tout moment lu ne mun na am tax ñu installé fi salle boo xam ne les premier secours nañ ko mun a def wala sama genre yi nga xam ne bu ñu bëggee bu ñu bëggee nelaw rek daal di wax bopp buy métti ñu leen jarul dem hôpital docteur Thiora gi fi ñu jox lay quelques kii rek nga delluwaat. yooyu yooyu bokk na ci ba ci xool nu ñuy nu defee ay crèche nga xam ne euh, jigéen ñi nga xam ne dañoo toll ci yor euh, bébé mun ñuy xëy andi seen bébé mu nekk seen suñu liggéey tuuti mun a wàcc xool ko seen xel dal ñu mun a sëgg ci liggéey bi yooyu yëpp ay xalaat la yoo xam ne ñu ngi ciy commencé liggéey pour euh, li nga xam ne dina dina ñoŋal liggéey bi ba ci les bus de ramassage également wax nañ ko fii kon daal li ma leen bëgg wax fii mooy li ñuy xaar ci ñun li président de la république di xaar ci ñun du rëy a rëy la pour ñu liggéey ko il faut que l'esprit d'équipe ñu xam ni équipe mooy liggéey kenn ku ne li mu war a def mu def ko waaye li mu war a séq ak moroomam ci liggéey mu def ko ci anam ñu gën a rafet ñun ñëpp ñu porter projet bi loolu tekkiwul ni dama damay def politique déedéet mais ki yàlla fal mu ñëw ak projet am juróomi at yi nu mu tuut tuut tuut juróomi at yi projet boobu mooy projet Sénégal kon kuy fonctionnaire projet boobu moo la tëgg tënk bu la neexee boo wàccee demal nga def sa politique feneen ñu loolu ça ne nous gêne pas amuñu ci benn problème mais tant que yaa ngi fi na nga engagé wu à 100 pour cent ci projet bi jox ci joxe le meilleur de toi-même pour projet bi. Euh, di daaneel foo wax nag ni pour lépp loo xam ne yitte la wala su sant di wax ni ci fan yi di ñëw nag dinañ defaat yeneen rencontre mais sectorielle ak euh, les différentes directions les directions générales les bureaux euh, les cellules des réunions sectorielles pour gën a xam lan mooy euh, ay jafe-jafe ci service yooyu donc merci beaucoup et bon appétit